candidats yi ñoom ñoo boycotté. non non boycott non non non non non non il faut pas accuser comme ça les c'est trop facile si le président leur avait dit que ñoom lay recevoir ñoom kese lay waxal dañu dem. mais quand même le fait que mu bëgg koo def dialogue ñi ñii ne dañ leen a spolier ñu boole leen ak les candidats retenus mais ils ont raison de ne pas y aller. Mhm. moi ce que je leur reproche ginnaaw président nee na woon mën na leen a recevoir avant muy dem dialogue ba je crois qu'il aurait dû y aller mais l'idéal serait que bi conseil constitutionnel euh, annulé décret président de la république bi annulé la loi du PDS ne ko fexe leen ba wut élection organiser élection ci na mu gën a gaawee. pour man jàpp naa ñi président waroon na waxal mooy les candidats retenus parce que les na mu gën a na mu gënee anam li muy tekk ci cadre conseil constitutionnel mooy avant le deux mais le conseil constitutionnel aurait dû avoir aurait dû être plus explicite bind ci édition ba ne le président de la République doit organiser le premier tour mu serait-ce que peut-être un mois avant la fin de son mandat wala peut-être quinze jours avant la fin mu leer mais le malheureusement le conseil constitutionnel a laissé un, un vide ah bon président boroxlu ci dem dajale ab dialogue mais le dialogue n'avait pas sa raison d'être il devait seulement dialoguer avec les candidats retenus boole leen ak Sénat boole leen ak DGE ak ak au moins ñu toog waxtaan cette ban date moo gën date boobu ñu ko retenir mu am na sax ñuñ si ne jot nañoo gisee ak président ñoom seen biir ñu ngi koy jiiñante. waaw am na ci ñu bare bare ñu ñu d'accord ci rapport bi moom. ñu gisee ak président. Ah, avant dialogue bi ah déedéet déedéet bàyyi noonu rek nañ nañ yem ma yem dama ne. am na ci candidat yu bare bare yoo xam ne d'accord nañ ci ñu reporté élection yi. dégg d'accord boobu au téléphone la wala dañoo ah, déplacé. wala nu mu demee rek. xam nga Sénégal moi je crois que dans cette affaire même président dafa am gars yi dañ ko ne nañ dem ba mu départ gars yi taxaw. gis nga bi muy bi muy def yooyu mu doon def. Mhm. la ko jiitu am nañ ñeneen am na ñu bari ñu waxal ñoo xam d'accord nañ ci ci ñu reporter élection yi. bon maintenant bu dee PDS am nañu intérêt pour ñu dàq élection yi am na ci candidat yoo xam ne ah, wax dëgg yàlla campagne bu difficile la ñuy campagne ñu dàqoon ngi du leen déranger mais li garaaw mooy xëy na am na ñoo xam ne lañ galgaloon ci biir moo gën a garaaw que bu ñu dàqoon élection yi bu ñuy reprendre le processus le jàll kii le parrainage citoyen dañ koy dindi. Mhm. kon booba ko amul député wala nga ami maire. doo nekk waaw mhm. ah, loolu moom am na ñu ko programme woon bon maintenant le président jéem na jéem ah moo moo Karim Wade ah, euh, sottiwut. d'accord bon d'ailleurs boo xoolee même les y a sept bon xam nga politicien dafa garaaw de l'idée même qu'on circuler comme quoi l'élection bu ñu ko daxee avec l'amnistie Sonko dana mën a nekk candidat ça a même commencé avec créer des problèmes au niveau de Pastef bon mais je crois qu'ils l'ont dépassé maintenant quoi en réalité pour man le président bi affaire bi jeex il fallait mu rencontrer les concernés parce que en réalité les concernés rek la waroon a waxal et finalement on est revenu aux ñan la si jot a rencontré. déet soxna si yow itam waaye noonu rek xam nga man damay man man dama bokk ci politiciens yi gëmi révélation mm-hmm. waaye noonu rek yow demal nga gëstu rek jox ma ay indice comme ça nga yombalal ma yoon nga am indice ci penc kenn <laughs> dañaa jot léegi léegi benn xibaar boo xamante ni mu ngi bàyyeekoo ci directeur général des élections muy xamle ni force de défense et de sécurité du ñu woote benn fan avant ñi nga xamante ni ñoom ñoo di civil yi dogal bi mu jël mooy ñi nga xamante ni ñoom ñoo di force de défense et de sécurité ca lieu de vote yañ leen yóbbu ngir ñu sécuriser ko nañ amal foofu seen vote. E, exact njàngat nga ci am. man loolu personnellement moom a gën a xamal tax bu ñu dee lañ doon def mooy ñu wote avant les autres. les civils les civils danger bi ci nekk nit ñi mën nañoo xam kan la soldats yi woteel ça c'est pas bon maintenant désormais ils votent comme tout le monde. soo ñëwee da ngay ci sa suufu sa sa sa. kii de mission nu ñu ko tuddee. xam nga ordre de mission bi ñu bi ñu la jox. waaw mm-hmm. ak sa ak sa pièce d'identité moom ngay présenté. ñu bind sa tur ci suufu rajouté ah, la. ci suufu carnet bi nga émarger voté je crois que loolu moo gën mooy tax du xam la tendance politique au niveau de la police de l'armée et de la gendarmerie et je crois que loolu moo gën ci réew mi quoi. man taskatu xibaar bi nga xamante ne dimanche damay toog plateau ban moment lañ ma may ak maa ngi war a woote ji ba Caaroy di liggéeyee ba Yoof lan moo tax defaluñ ko taskatu xibaar da nga koy liggéeyal di ak sa rédacteur en chef. taskatu xibaar dafa mel ni. Ah, ñoom ñooy ñaaw yaay dafa naqaree lijjanti nag c'est que journaliste dañoo xaw a si xam nga l'état lim man mooy lim maîtriser l'état maîtrise les forces de défense et de sécurité l'état maîtrise les membres du bureau de vote mooy le président les secrétaires et les assesseurs parce que ñooñu en général des enseignants mm-hmm. l'état mën na maîtriser ñooñu mën na leen jox de mission waaye quant à journaliste bu ñëw taxaw ci buntu bureau de vote naan damay wote parce ah yéen li ngeen bëgg yomb na de on vous on amnistie fiscale maintenant ngeen bëgg ñu bu leen neex wote. pour yombalal suñu liggéey voilà. man juste question bu ma dama gis ne que ba ñu commencé débat ci politique ba léegi saa ñu duggee ci côté Pastef ak Bassirou Sonko da ngay lànk ne doo ci wax euh, ndax bu ñu toogoon parce que question yi moo dul leer ci man rek soxna si. d' accord bu ñu toogoon à un moment donné ñu xëy tey dimanche jot. Papa si ñu ne kii di Bassirou Diomaye Faye fal nañ ko président de la République yow nan ngay doxalee tey. <laughs> tàmbali koo xeex rek. <laughs> ndax doo doo doo xat. bu boobaa ndax bu boobaa. tàmbali koo xeex rek te xam Sénégal dana sànq ba faaw. tàmbali koo xeex rek laa di te xam ne Sénégal dana sànq ba faaw. candidat bu toog ne man sama sama sama sama programme baaxul. ku ko ñemee wax. maanaam yow bu présenté wul programme. moom moom Diomaye fay nee na programme am ah, baaxul yaa ko ah, wax. Ah, waaye kii di Amadou Ba Diomaye nga bokk wala bokkoo ci. pas agent posez-moi une xam nga ñun journaliste yi chaque jour ñu. xam nga parfois mhm. di wax ci lu lu am te mooy di wax ci sa xalaat te mooy di foog dans cette émission là ñu nuy seetaan dégluwuñ sa xalaat yow man la ñuy déglu. pose-moi une question je réponds sa boo amee say xalaat nga denc ko ba dem. Mhm. mais kii li mu la wax nii du xalaat. la fait que ma appuyé ci question bi daf la xamal ne la une fois que tey Bassirou Diomaye Faye accéder au pouvoir nga ni nga commencé di opposé wu ak moom. Sénégal Sénégal sànq ba faaw parce que nee na projet. parce que bi nga xamante ne nii moom la présenté nekkul projet. wu ko sànq nee naa la kii di Amadou Ba lan mooy programme am nga ni ma. amul dama ne ci benn candidat non soxna s'il vous plaît. Mhm. su fekkee da nga fay bu fekkee seen bopp. vous me l'expliquez je prends mes bagages je rentre chez moi. parce que j'ai pas temps. non non loolu. non non non vous plaît d'abord j'ai remarqué depuis le début. Mm-hmm. vous revenez toujours pour sur ces affaires là. son si quand même j'ai d'autres préoccupations que de parler de Diomaye Faye. du ma morom du ma mapandoo taluma ko maintenant li nga wax nag saa Sénégalais bu ñu créé ba fal ko ma ma c'est leur affaire du suma affaire man aussi simple que ça. dañu wax leneen <laughs> fekkente ne da ngeen mbir mi dafa am lu tax ci biir ngeen wax ma ko. ma daal di ñibbi ndànk. non ñibbi ndànk parce que ñëw gi fii am naa fu ma waxee am naa lu ma wax. Mm-hmm. Eh, démb rek wal am na ñetti chaînes yu mag invité je préfère venir ici. merci. parce que jàpp naa ne xaar ma wax rek man fu ma jëm damay yóbbaale sama bii nag. Mm-hmm. et que je participer au développement de votre chaîne c'est tout. Mm-hmm. maintenant su fekkee nag da ngeen a am leneen lu ngeen ràpp seen biir. juste vous me le je rentre chez moi. juste pour leeralal la rek parce que toogeewu fi toogaayu benn. parti benn parti politique kee ne ma de eh, ma ne ko nu ngeen tudd mu ne bala bala ma ne ko dem ma. mu toog ba ne ma changé nañ tudd ma ne ko damay ñëw. d'accord tey jii wax dëgg yàlla mënoon naa dem télévision yeneen te dama ko ma bay ñëw fii. nekkuñu agent de communication bu Bassirou Diomaye Faye. waaw ah, d'accord yoruñu tamit benn casquette c'est juste une simple question boo xamante ne posé nañ la ko question bi doon na ne cette question n'a pas d'intérêt Bassirou Diomaye Faye Sénégalais ku ñu pal que ça c'est-à-dire que bu la nekkoon contre man Moustapha Diakhaté la constitution me donne le pouvoir le droit de m'opposer à qui boo juddee gone nga je me suis opposé à Abdou je me suis opposé à Abdoulaye Wade et je me suis opposé à Macky Sall ñeenti président de Sénégal amagun 1976 laa dugg ci politique ci RND ànd ak Cheikh Anta di xale bu ndaw di xeex Senghor ba mu dem ma continuer di xeex Abdou Diouf ba mu jógee fii fi Abdoulaye Wade dafa lu 2009 ma bàyyi ko cabinet ak parti dem di ànd ak Macky Sall Macky Sall 2019 ba léegi ñu ngi xeex soxna si. la constitution du Sénégal me donne le droit de m'opposer à qui que ce soit te jàpp naa ces personnes-là à qui je me suis opposé en termes quand même de profil ils sont plus intéressants que son que que nag yooyu tamit. nga ko kon leer na. mais pourquoi vous me demandez si ba si Anta tax laajoo ma ko. bien sûr laaj nañ la ci Anta Babacar. non non non c'est-à-dire bu nekkee président ndax dama koy opposé wala déet. laaj nga ma ko laajoo ma ko. Serigne Boubou est-ce que bu nekkee président mi Pastef moo taal réew mi Ousmane Sonko ma fi wootee non s'il vous plaît kan mënu déet kan la bàyyi ma wax samay wax c'est pas ton problème de me dire eh moo taal réew mi ci wax ci ci wax ju lu dëgg ay mbooloo faatu fi àll réew mi yàqu fi mais xeex bu nekk euh, euh, monsieur Diakhaté ñaar a koy ah, def s'il vous plaît nag <laughs> am na lu ma leen waxoon ci heure bi de ah, voilà donc de façon euh,